jaajëfal ko bu baax moom Fatima Top moom mi leen doon digtal xibaar yi ci kàllaamay Kocc Barma mbokk yi amaat mbette bu baax daal di jàkkaarloo ak yéen ci yi ci li nga xam ne moom moo jëm ci bi lépp émission di 12 minutes chrono fukki minutes ak ñaar ngir ñu waxtaan ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum actualité nag xam ngeen ne waroon nañ ko sax yàgg waxtaane waxtaane nañ ko waaye tey dañ ciy ñëwaat E, mbëkk mi immigration irrégulière ak e, jéey yi nga xamante ne mu ngi koy def ci biir réew bu Sénégal tey ñu dalal ci e, gan gu mag koo xamante ne ràññee nañu ko bu baax ci li nga xam moom moo jëm ci xeex lépp lu jëm ci wàllu mbëkk mi Barça wala Barsaq Souleymane Diallo njiitalu Otra Africa góor gi ñu lay dalal te am mbégte dalal la suñu plateau. alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu seen seen yi di nuyu seen njiitu chaîne de communication bi. macha allah euh, Souleymane Aliou Diallo moom mooy njiitalu euh, euh, Otra Africa di kuréel wala organisation boo xamante ne mu ngi yëngu di saytu di xeex lépp lu jëm ci wàllu minimel di immigration irrégulière bu ñu waxee immigration irrégulière mbëkk mi Barça wala Barsax jamono ji tembe ñuy wax dañuy tàmbali. Souleymane ci actualité bi nga xam ne moom mujj jamono jile muy euh, gaal gi nga xamante ne wax nañu ne euh, xëy na jóge na euh, ca ñi dem wutali kon waax yu kon bar Barça bar Barsax tey jii gis nañu jéye bi nga xamante ne am na est-ce que am ngeen information supplémentaire ci gaal gi nga xamante ne jóge woon na fa ba ñu gis jéye bi nga xamante ne am na ci juróom téeméer juróom ñaari ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñoo xamante ne xëy na nee nañu ñàkk na seen ñàkk nañu seen bakkan bon source yu ñu am mooy source ñuy partagé Euh, amagu si dara lu bees si ni ñu ko ni ñu ko waxee effectivement euh, noonu ñun tamit lañ koy jotee léeg-léeg ñoo bokk ay sources ñun euh, si lenn rek mooy nekk différence bi parfois ñun ñi ñu toogal foofu wala suñuy naataangoo suñuy xarit suñuy am di jàmm ñi nga xam ne xam nañu si dossier bi nekk boor boobu euh, par exemple si Dakhla wala si si Las Palmas ñoo xam ne ñoom spécialement si dossier boobu la ñu liggéey ku mel ni Awa Ndiaye Paté Awa Ndiaye Diop bu Las Palmas bon moom daanaka gaal bu yegsee euh, si ñi di collaborer ak police espagnole ak dispositif dispositif croix bon peut ak moom la ñu wéccool yenn information yi puisque moom moo gën a jege source bi sur loolu aussi sur le plan politique on a une très belle collaboration avec euh, le parlementaire espagnol d'origine sénégalaise Luc André Diouf moom tamit dañu partager ak moom lu bëri te vraiment day tax ñu nekk vraiment au niveau d' information tant sur le plan étatique que sur le terrain ñi nekk Dakhla ñoom tamit dañuy jox euh, kii donc li mujj euh, information yi ne sont pas encore variées donc xam nga lan moo si am solo lekk-lekk mooy ni que euh, ligne de collaboration bi ligne de coopération bi ba nga xam ne au moins. le maximum d'information dañ ko si mën a am te mu nekk également information bu fiable information bu dëggu tamit. d'accord information bu fiable information bu dëggu loolu lu am solo la mais est-ce que concrètement euh, bu ñu déggee collaboration bi nga xamante yaa ngi koy wax léegi seen diggante ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk euh, bu ñu xoolee ci lim déjà le président Macky Sall ci conseil des ministres bi mujj mu ngi doon xoox ngir ñu xoolaat ñi nga xamante ni ñoom ñoo jóge fii Sénégal dem wuti Barça wala Barsax lim bi concrètement est-ce que xëy na am ngeen ci information. waaw xam nga man léeg-léeg du ma di dugg si ay polémique si si euh, ay lim euh, pour ne pas déflorer un peu l'esprit scientifique de xam nga koy làqatu du dem. ak ki nga xam ne dafa yegg si diggante bi lu bëri xaj na si. xamoo ki xamoo ni ñu génnee da nga gis rek ñu yegg xamoo kañ la ñu génn xamoo lan moo des si yoon bi li la mën a communiquer rek moo tax man lim yooyu lekk-lekk structure ak institution multilatérale yi suñuy polémiquer ñun autre africa dañ siy xaw a téye suñu bopp parce que fiabilité wu ligne euh, ligne boobu et d'ailleurs sax ci biir wax jooju li gënoon rafet tey man si li ma jàpp mooy ni que gouvernement wu Sénégal waroon nañu mën a dépêcher. Euh, benn délégation wala benn équipe ñu dem sur place puisque màngaan bi toll na foo xam ne jéggi na doyoo te boo xoolee source yu bëri yu ñuy am source yu jóge ci ñoom la donc mën ñoom seen bopp mën nañu manipuler comme ñoom seen bopp mën nañu liggéey ci seen euh, analyse ba nga xam ne ñun kii lañ donc euh, man je j'aurais préféré gouvernement au Sénégal tey mbir bi fu mu toll rafetoon na sax ci askan si ki moom sa sa sa sa sa ay doom ak li ñu tudd lu mu bëri bëri bëri yëpp euh, gouvernement bi yónnee foofu une délégation wala une équipe ba nga xam ne ñoom seen bopp sax dañu xam ne am nañu yëg-yëg si suñu askan mais ni mu demee nii. bo léegi nag lenn li nga junj mooy lu bees di xam ne am na si te ñun ñu yàggoon ko prôné. bon na ni addu si publiquement mais bu ñu toogee ba conseil des ministres communiqué conseil des ministre génn njiitu réew bi ñaaxaat gouvernement bi ne leen wàllum euh, immigration bi wàllu mbëkk bi xool leen lan moo am ay solution ñun lenn rek la ñu mën a teg si loolu xam nañu ni que am na ay kuréel yoo xam ne ñu ngi nekk si migration bi di si liggéey. bien sûr particulièrement bon am na loo xam ne ñun ñu ngi si am na ñoo xam ne yëg nañ leen xam nañ leen te ñu ngi rafetlu seen liggéey par rapport ak loolu ku mel ni le général Abdou Wahab Sall. mooy le coordinateur du comité interministériel pour la lutte contre l'immigration irrégulière. moom am ci gouvernement bi la bokk. waaw est-ce que jot nañ waxtaan pour xool lan la ñu mën a teg ci table bi pour début de solution parce que nag il faut le dire il ne peut pas y avoir coûte que coûte une solution concrète. waaw si ku mel ni kooku ñun xam nañu ni mu ngi def kem ak kàttamam. pour mën a li njiitu réew bi wax démb moom mu ngi si doon dox peut-être nag dafa am ni que euh, si autorité bi walla politique de la migration xawma au niveau gouvernemental lan moo mais su yeggee ba si table njiitu réew mi te comité boobu am te ñu xam xarañaayu général boobu euh, ak ñu xam tamit pas-pasam pour régler le problème mais problème bi dafa profond profond bi dafa toll si foo xam ne euh, ñun loolu ñuy wax noonu état au Sénégal démb ñun dafa fekk man bi ma participer ci validation stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière. validation boobu kañ la ak stratégie boobu kañ lañ ko teg quel a été justement les fondements bu stratégie. yaa y a il y de cela deux trois mois lañ ko valider fii ci benn hôtel de la place ci corniche bi donc fondement bi mooy ni que teg ay rudiments teg ay instruments teg ay euh, process ay processus yoo xam ne au moins dina anéantir immigration irrégulière mais dafa am benn paradoxe bu ci am. tout dernièrement man bi may def analyse yi personnellement je me suis rendu compte que stratégie bi lu muy rëy rëy rëy yëpp hmm. euh, nous n'avons pas les ressources les fonctionnaires yi siy liggéey très déterminés très engagés par rapport à la stratégie nationale mais ils n'ont pas les moyens c'est quatre personnes autour de cette stratégie qui devait englober énormément de matériel, énormément de financement, de la énormément sécurité, de, de... Ou bien finalement financier, entre autres. C'est-à-dire, quand aujourd'hui on met en place une stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière, évidemment, il faut mettre les ressources humaines Certes, il y a des, fonctionnaires de la police qui travaillent, qui sont très qualifiés, qui sont expérimentés sur la question. Et là, vous faites référence à la sécurité maritime à la, De, l'ensemble, globalement, puisque ce n'est pas la sécurité seulement maritime. il y a la sécurité terrestre, il y a la sécurité aérienne, il y a beaucoup de... Aujourd'hui, le chef de l'État a dit qu'il va mobiliser les moyens. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le, le moment. Est-ce puisque... qu'il y a Mais je pense qu'en parfaite euh, coordination, avec beaucoup d'intelligence, digante, stratégie nationale, Nisi Ligue, bi coordination interministérielle pour la lutte contre la migration irrégulière ak les ministère des Sénégalais de l'extérieur ñoom ñëpp dans un ensemble suñu toogee mën nañu am bon mais ce qu'il y a lieu de dire et ça il faut le dire à la population malheureusement nous le ministère des Sénégalais de l'extérieur on dirait que bon on les gêne un peu dans le travail et telle n'est pas notre mission telle n'est pas notre souhait c'était une diggante yéen ak ministère bi taxu ko tax maanaam collaboration bi amul ça passe pas directement comme le, on le dit le courant ne passe pas. bon je veux être un peu plus diplomatique on s'est pas assis sur la même table et on ne dit pas le même. xam nga est-ce que vous avez demandé à s'asseoir sur une même table. bon je vais pas déflorer euh, je vais pas déflorer de secret. d'accord euh, d'une façon euh, spontanée. Euh, j'ai eu à rencontrer Madame la, la, ministre à une réception où on s'est salué d'une façon très cordiale. Non, l'actuel la, la, ministre des Sénégalais, des, des Sénégalais de l'extérieur. On s'est parlé d'une façon, euh, on s'est parlé d'une façon très correcte et il était question qu'on se voit. Entre-temps, j'ai eu une information venant du Parlement européen sur laquelle je voulais partager avec elle sur la question de la migration et particulièrement la migration circulaire avec le gouvernement espagnol. Je essayer d'aller vers elle. Et c'est pour la première fois que je le fais pour une personnalité du gouvernement du Sénégal. Pourquoi Moi, je, suis, je dis que ce que nous faisons, c'est euh, en faveur du gouvernement du Sénégal parce que nous sommes des lanceurs d'alerte et nous avons certaines informations à certains niveaux qu'on devrait partager avec elle. Malheureusement, j'ai envoyé, je, je, je, avec beaucoup de respect et beaucoup de considération, euh, la réponse que j'ai eue, c'est bien noté. Alors que le contenu de quoi la... cette réponse exactement non je je voudrais pas rentrer là la là dessus. je les Sénégalais sont en de nous écouter monsieur Diallo Sénégalais ñu ngi déglu dañoo bëgg a xam exactement yéen seen organisation lan la ñuy def pour xeex li nga xam ne moom moo jëm ci. bëgg waaw dama amoon xibaar bu takku boo xam ne dafa war a jëm si wàllu migration bi particulièrement migration euh, circulaire ma waroon ko partager gouvernement wu Sénégal mais du moment où amaguma opportunité bi te ki ma ko jox vraiment personnalité Union européenne la euh, député parlementaire Union européenne dama toog ak kilifa ji ba man ak moom ñu waxtaan ñu déggoo si nan la war a génnee su boobaa ñun loolu mooy suñu rôle du kii mais nag kilifta tamit danga koy jox kilifa puisque bëgg naa toog waxtaan ak moom ñaan naa ko boo du woon sama cër sax parce que man à part euh, euh, Ngoné Ndoye Ngoné Ndoye ministre moom rek laa si mës a ñaan toog waxtaan ak moom et a été très fructifieux pour le Sénégal boobu ba léegi li ñuy def. ñu ngi koy def ci turu Sénégal waaw mais immigration bi day continuer immigration bi dina continuer tey dina continuer suba. déjà vous reprenez encore une fois des propos dont vous avez parlé il y a deux mois que ne immigration bi mu ngi wéy mu ngi fii te dina continuer est-ce que vous pensez que encore une fois ñu ngi dem ci ay départ yu yu yu bees. tey si guddi dina am dépar pardon. tey si guddi nii ce soir dans la soirée d'aujourd'hui jeudi soir y a deux pirogues qui sont positionnées pour sortir. fan la ñuy jógee. ah déedéet <laughs> ñu tamit dañu nekk di liggéey nous sommes en train de faire le travail de dissuasion. est jël aussi. ñu ngi def suñu kéemtalaay kattan mooy. li ñu def comment ay ndaw yu départ et que yéen da ngeen di bàyyi ñu dem. pour jël géej déedéet déedéet hmm. c'est-à-dire ñun dañu def travail de terrain. dañoo am information bi su ñu amee information bi lekk léeg am na ñu ciy liggéeyal. parce que tamit yow ni nga nekkee journaliste ngay dem à la recueil de l' information ñun tamit comme sensibilisation noonu la ñu nekkee sur le terrain pour xam et pour waxtaan également ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def ñun amuñu capacité amuñu force amuñu kii pour ne bul dem. waaye war nañu mën a toog waxtaan ak yow sensibiliser la xamal la risque yi siy nekk ba pare nee la lii boo si demee yaa ngi def sa bakkan si xottu gerte kañ ngay dem nag nan ngay demee léeg-léeg dañ koy for léeg-léeg sax ñu nax ñu mën na ne ne maa lay ne nii nii tey am nañu njort ni que tey am na gaal buy génn si waaxu ndakaaru yi soriwul ndakaaru te fu mu nekk nii ñun ñi ñuy waxtaanal ñoom xam nañu gaal gi dina génn te nee nañ leen fexe leen loolu ngeen waxtaan ak ñoom mais xam nga dafa am beneen problème bu si am. bu si muy lan. kuy dem di làqu du tàggoo. loolu rek moo si métit bi kii dem di dem du du du kii kii dem di làqu du tàggoo alors que état au Sénégal war na mun ut ay alternatives par rapport ak loolu wax dëgg yàlla il faut rendre hommage aux forces de sécurité et de défense notamment la gendarmerie sur les questions vraiment de de de renseignement am na ñu bëri bëri bëri ñoo xam ne. Hmm. lii dem si gaal ak li ñuy dëpp si gaal li ñuy dëpp si gaal moo ëpp lii gaal yi di dem. en matière de dissuasion en matière de dissuasion en matière de kii vraiment gendarmerie mu ngi def liggéey bu bu bu am solo. mais foofu la ñu mën a foofu si loolu tamit mooy. d'accord pour ñu jeexal Souleymane lan la ñuy proposer comme solution. solution yaa ngi fi. en quelque sorte oui. Euh, président Macky Sall na fexe. woo d'abord au niveau communautaire tous les pays yi nga xam ne limitrophes ñu toog dans un cadre communautaire africain sous-régional ñu jéem a waxtaane problème bi au niveau national sànq maa ngi lay wax li stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière mais ñu fexe ñu élargir ko à l'ensemble des partenaires les lanceurs d'alerte les journalistes ñu fexe ñu am une concertation nationale sur la migration irrégulière ñu ci solo bu ñoom ñoo xam naa lañ koy tuddee conférence deuxième chose bi mooy ni que état bi politique de restriction bi mu am si immi si immigration bi na ko améliorer mu ubbi ko mu ut benn bureau wala benn organisation wala benn délégation nationale à la migration xale yi bëgg a dem immigré ji dem bind ju foofu ñoom ñu xool ak seen partenaires yeneen réew yi ak yeneen dëkk yi nan la ñu jàppalee xale yi ñu dem d'une façon très ouvert très légal avec des visas ñu accompagner xale yi nan la ñu voyager. merci beaucoup euh, Souleymane euh, Diallo moom mi nga xamante ne moom mooy njiitalu euh, kon Otra-Africa dégg ngeen kaddu yi nga xamante ne yëkkati nañ ko fi am nañu njortu ne xëy na dinañu waxtaan gouvernement bi teg li nga xam moom mooy stratégie boobu ko defee li nga xam ne moom mooy jéye bi ñuy daal di dund jamono ndax il di le dire c'est un drame. dramatique d'ailleurs même ci li nga xam moom mooy immigration irrégulière bi mën a nekk une euh, histoire ancienne euh, fii ci biir réew bu euh, Sénégal mbokk yi 12 minutes chrono fi lañ koy daal di ci kanami tuuti Fatima Coulibaly dina fi dellu soit ci kàllaamay nasaraan ngeen daal di am xibaar yi 21h lay doon laata loolu mbokk yi wéy leen di ànd ak suñu programme